gars yi 23 24 décembre événement ambiance sénégalaise dîner de gala red carpet vente privée képp ku bëgg a jaay nga ñëw entrée libre ñëpp ñëw affaire ñu ngi si ànd ak Even Prod ñu ngi si ànd ak DS Prod ak beaucoup de partenaires ay entreprises yu nekk fii nii nii nii Amérique ñu leen di xaar yéen ñëpp gars yi jëf gars yi yi wax nañ ko jarul ma ci yokk lu bëri yéen a tax ñu ne fii donc on vous attend tous le 23 le 24 et puis surprise bu doy waar moo leen nar a xaar mooy lan la diffusion exclusive épisode 34 bu Cœur brisé samedi lay xewee au de gala parce que dimanche lay jàll donc ngeen am exclusivité seetaan ko balaa muy jën on vous attend tous on est là soyez là ça va être bien we go turn up peace. comme defe naa ni yi wax nañ lépp waajal leen ko mu doon événement bu nar a neex 23 24 décembre waa Columbus Ohio état boo leen munti nekk ñoo leen di convier ngeen ñëw. xam nga mu nekk événement boo xam ne sénégalais yi ñooy daje gambiens yi ñooy daje africains yi ñëpp ci biir xam yéen yéen a ci mën a jàpp bu ñu ko defee di ko defaat di ko defati di ko defati day tax ba tey ji ñun Sénégal dañuy doon benn dañuy nekk fépp suñu réew bi day wër fépp kon nag le rendez-vous est donné Evenprod DS Prod